leen ñu roy jaara góor ñi santu maam jaara

mami soxna su cerno samaam Seex Abdulaay mooy samaam soxna asu cerno sëriñ Seex Abi Mbàkke sabaay ey Seex Abdulaay mooy samaam soxna njaxan Mbàkke saay Mbàkke balay sa bure sëñ Mbàkke maaram defar na kër sëñ Tuuba defar na daaray kaamir defar na kër sëñ Tuuba wuy ji na Seex Bamba ubbitu rabbi way mi seexee mbaane woon bàyyi laat am naa ci moom yaakaar waaye samaam te sul yaakaari baayam ndox autoroute bi Cheikh Abdou Lahad këru moom Cheikh Abdou Lahad Touba Corniche ba sax Cheikh Abdou Lahad yukkuk jumaa ji Cheikh Abdou kaamir Cheikh Abdou Lahad Corniche sax Cheikh Abdou tili ne ci Touba Mbacké Cheikh Abdou Lahad samaam sama mboom te sun yaakaari mbaayam Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad yàlla ko naan jërëjëf Cheikh ah. Abdou Lahad yàlla ko naan jërëjëf neen ma naan baylaat Mbàkke sa kanam Cheikh Abdou Lahad ku ci fekkaay jamonoom jàppal songoy bu dëgëree dalay dimbali du la maami soxna maam njaxan Mbàkke tananam ku bëgg soxna maam Njaxate Mbàkke defal ni ñu màggal Cheikh Abdoulaye tey mbaayam yàlla ko naan jërëjëf yàlla ko naan jërëjëf yónneen ba naan ko jërëjëf manin ma samam ca kanam ku ci fekkaay jamonoom jàppal tongoy bu dëgër waaw te lay dimbali du loolu Cheikh Abdoulaye ca kanam soxna ci kàddu soxna Abi Guèye moo soxna am seexum sëriñ Fallilu ak alaaji Mor Guèyeum sëriñ Fallilu ndax mooy sunu jëwriñ ci kër gi ndax lii mu def nii ñoo ko waroon def ñun ñi mag kon nag bu ko defee kaay ñu ànd liggéey sëriñ Touba ku ko defar rek yow la bëgg ndax mu nu bañoon du def li nu def ndax ay mag a ngi fi man mi benn ci man waaw waroon naa ko njëkkee te xañ na yàlla dogalu ko ci man kon nag su ko soxna Abi Guèye defee mii ñu di ko sant di ko ñaanal ci barkeb Alaaji Fallu maamam fu mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg lii mu sumb yàlla na ko yeggale ci sëriñ Touba tax ci barkeb Alaaji Fàllu ci barkeb Serigne Fàllu di ñaanal nag sëñ seex Abi Mbacke baloo ñu nuyu soxna Njaxat ñu ñaanal sëñ Cheikh Abi Mbacke ndax kat sëriñ bi motub sëriñ la ndax Sénégal yëbu ko l'islam jamu ko ndax dawi def jëfe ay ndigal rek ak dawi tere rek ci la nekk Mbacke ndax foo taxaw ci réew mi ne sëriñ Cheikh Abi Mbacke sama sëriñ da ngay daal di siggi ñu daal leen naw lool oto boo dugg wax ko deñ la naw lool sagoo la lool tiitaro lool te xam nga loolu rek lañ ci tàmbu ci sëriñ ndax ab sëriñ danga koy tudd ñëpp seeni xol sedd te Mbàkke matale na ko yal na yàlla guddalu fanam te waral li cëram yàlla bàyyi ko fi ak njabootam ndax moom lu mu doyut lu mu dund rek sëñ Cheikh Abi Mbacke lu mu dund doyut yal na ko yàlla sam te aar ko te taxawu ko ba naa li mu naale Serigne Touba maamam yal na ko yàlla Serigne Fallilou Mbacke eggale ak Serigne Touba maamam ak Cheikh Abdoulaye waral bis sant nañ ko gërëm nañ ko yaaram yow ñoo ngi lay ñaan dañ lay bàyyi Seex laal sa baay ndax kat dangaa jaboote macha allah laf cat ma ne ko dangaa jaboote ndax dangaa boole njabootu soxna si Cerno Mbàkke ak njabootu soxna bi macha allah dokkee teg sa njaboot dara paralysé woon Mbàkke kon nag yàlla na yàlla guddal soo fan ci barkeb Sëriñ Fàllilu Mbàkke ndax yow foo toll dinu xamal ne yéen njabootu soxna si Cerno yéen a juuti sama njaboot njabootu soxna abi Mbàkke ñooy juuti sama njaboot te lool di lu dëggu ci yow nga jëfe ko waxe ko fu fi waay nekk la war ci moom suba ak ngoon guddi ak bëccëg yaa ngi koy def seetaanoo ñu benn yoon suñu amee naqar yaa ca gën suñu amee ba ndax yaa ca gën wettili nga nu dëggoo nga nu safoo nga nu faale nga nu kon nag Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem kenn ku la koy yéene yàlla na fi yàlla bàyyi yaa njaboot gi Mbacke loo dund doyut yàlla na defal yàlla fan wu gudd woo ànd ak wér te yàlla defal la cet musali catakum ndog ba naal yi nga naa sa naali maam bi yàlla na koy yeggale yeneen naal yoo tàmbaleegut waaw di sant nag soxna bi Guèye cant gi nag soxna bi Guèye nee na mi ngi sant waa daayira bépp di sant waa Ndindi di ci tàmbalee soxna Abi Mbacke moom sëriñ Abdou Mbar Mbacke ak sëriñ Cheikh Abi Mbacke ak soxna Jaxat Cheikh abi Laat ñoo ñoo seq soxna soxna Abi moo ko njabootam waa ñëpp a ngi nii toog kon gi ci moom laa koy tàmbalee di sant njabootu Cheikh Abdou Fatah moom sëriñ Fallilu ndax ñoom it fa la njaroo di sant njabootu sëriñ Alaaji Baara moom sëriñ Fallilu ndax ñëpp ñoom it fa lañ ñoom ñëpp a ngi nii toog tubarkalla macha allah waa Mbar ñu ngi nii toog soxna Yacine Diouf mi ngi nii toog tubarkalla macha allah daayira bi rek a leen yëkkati soxna Ndaa Ñang moo fi nekkal waa Ndakaaru macha allah soxna Ndaa moo fi nekkal kàddu waa Ndakaaru tubarkalla macha allah moo mi ngi takku laxa saayu bëggul daayira bi dara paralysé ci kon nag Mbacke ñu ngi lay sant yàlla na nga wér yàlla na nga gudd fan yàlla na nga yokk ci barkeb Alaaji Fàllilu Mbacke njabootuk sëriñ Makka Joxaane soxna Ndumbe Gueye ngi toog tubarkalla macha allah ñu ngi koy sant te di ko ñaanal yal na ko yàgg a taxaw te yàgg koo fekke soxna Faati Mbacke moom soxna Daba Mbacke si xanta sa mag mi ngi nii mi ngi nii ñu ko ko seere cant gi di ko seere soxna maam Xari Mbacke mi ngi ci biir di ko sant di ko ñaanal yàlla taxawaay bi yàgg ci barkab sëriñ Fallilu di ñaanal way dawlu yi ñu jiitu yal neen yàlla yokk seen i leer te taasuñ ci barke seen barke ñoom ñëpp ci barkab sëriñ Fallilu ñu dem Mbacke ñu mënu yàlla fay amuñu lu dul yow yow rek la ñu xam yow rek la ñu miin amuñu kenn ku dul yow barke borom Touba yaay sunu sakk ci sëriñ sunu bunt ci sëriñ Touba kon nag Mbacke yaak sëriñ Seex abi lu ngeen dund doyut yàlla na seen fan yu mel ni doj ci barke sëriñ Fallou Mbacke yéen de yàlla sol ci catakom ndokk te mu sol ci seenu njaboot waaye daay rek bépp ni ngi nii toog kontaan nañ soxna abi xabaan moom Serigne Fallilu seen xabaan moom Serigne Fallu ak soxna jee Fall sa moom mi ngi nii toog tubaarkàlla macha allah daayira bi daal kenn maa ko soxna Yacine Diouf mi ngi ñëw mbar moo soxna Mbaxa Ndiaye tubaarkàlla macha allah soxna Mamanta Mbacke soxna surtout maam Cheikh Anta Mbacke mi ngi nii toog tubaarkàlla macha allah te ñëpp sa jëma li kon nag Mbacke ñaanal nu ñu ngi lay ñaanal yow it ñaanal nu wér ak gudd fan a kattan ñu mën koo joxe buñ li war ci màgg gi ñoo ko war a def ndax mënu goree noonu la war ndax li war ci noonu yaa ngi koy def sa dara paralysé wut ci man kon nag ñu ngi lay ñaanal ñu dund ba jël màggal gi di yow suñuy nag fi ak suñu gëléem di ko màggal yàlla am na ko man na ko Serigne Touba man na ko yàlla na ko def barke Cheikh Abdoulaye ngeen jëf. soxna Ndiakhate nee na lii nga def lu rëy la ci moom ndax nee na jëfe mag nga fi jëfe nee na dafa seral nga xolam nee na kon nag yàlla ak Serigne Fallilou Mbacke mi sa maam yàlla na seral sa xol. lu ngeen man ren yàlla ngeen man di man lu ko ëpp ci barke Serigne Fallilou Mbacke. nee na cant gi mi ngi sant ñëpp di sant waa Ndindi di sant waa Ndakaaru soxna Ndaa Ñang tubaarkàlla di sant waa kër Seex Abdul Fataa di sant waa kër Sëriñ Xabaan tubaarkàlla macha allah di sant gorom yi ci kër gi ndax ñoom it fu nu dóoree ñu dóor tubaarkàlla macha allah bàyyi wuñ daayira bi liko ko dele ci soxna Mbeen ba ci soxna Maam Jaara ak soxna Njaxat mu ndaw yen ñëpp mi ngi leen di sant neen bawut kenn soxnaa bi soxnaa bi Mbàkke soxna Ndiakhate nee na mi ngi lay delloo cant nee na ni nga yëgal ko waa Ndindi gépp nee na sant na nee na gërëm na nee na kontaan na nee na sëriñ tubaam bi tax ngeen di def yal na leen fay ci barkab sëñ Fallou soxna Ndiakhate nag nee na digganteem ak yéen nee na duuti leen sant na leen di ñaanal ndax ku ne xam nga fi nga toll ci moom njabootu soxna si Thierno gii mu fi baax njabootu soxna bi gii mu fi baax ku ne xam nga fi mu toll ci yow nee na kon nag weesu naa yéen ak cant. ak ñaan lay fas yéene defanteeg yéen yàlla ak sëriñ Touba fay leen ah ngeen yokk ba yëg ko lu ngeen mën ren yàlla na ngeen man déwén lu ko ëpp ci sëriñ Fallelu nee na sant na ñëpp nee na gërëm na ñëpp nee na xolam sedd na guy nee na jëfi yéene rek ngeen ko fi defee kon nag yàlla na yàggata sax ci barkeb sëriñ Fallelu loolu la wax nee na leen ko jottali waxelam maa tax murid yi mu nekkaloon mu seereel nu ak saadix te leen di ko lay leer bu waa réew mi muusoon bëgg suñ réew mi dox bu wér dañuy jël waxam def seetu ak jëf ya lépp leer bu waa réew mi muusoon bëgg suñ réew mi dox bu wér dañuy jël waxam def seetu ak jëf ya lépp leer ku xam li defar xammee li réew mi di aaja woo te daa wax nañuy def réew mi jàll bu leer a leer waxoon na fi ak baykat yi baykat la woon bu wér nañuy def ba seen mbay yi ñu am ci jariñ lu wóor te noon na ku fi bay bay sa dunday la lay jariñ leneen loo fi bay jaayaat ko bay dunde rek wóor leneen loo fi bay jaayaat ko bay dunde rek te noon na bu ngeen dee bay ba mooma noppi nag ñu sàmm bañ koo yàq ko nag wóor ku bay mbaa alal joo am ci wet goo man di am la cay àq yàlla nañ ko génne ba lépp leer ndegam yow xamu àqam nga laaj ko jullit ña xam asakaa di àq yàlla buy génn lépp leer waxoon na fi nun baykat yi bul xeeb li ñuy jëloo te bul xeeb li ñuy bay jaay ko jënde yeneen yu foor juróomi ki lay peppam nga jaay ko ci njëg ndaw nga jënde ko attaayaan du tee añ du tee nga reer jëlaat ñaar fukkam ci kilo xaymaam di lim bu ndaw nga jënd ak ndawal loole matul sa añ sa reer nga jaayaat yeneen fukkam ci ay kilo ju ci ay kilo njëg gu ndaw nga jënd ko ceeb lii moo di yàq gu leer leer te lii nga mënan caa añ te reer te yeneeni fan ku lim yàqkat jiital la nan diima aw fu leer te bam nu waxee wax jii da caa teg waxaat ju te andil nu aayay alxuraanam yu leela te bam nu waxee wax ji da caa teg waxaat jurey te andil nu aayay alxuraanam yu leela reeram danoon yàlla daa bañ yàq bañ waaja koy defit bañum yàlla mat naa mooy ko tey aw digal bu wóor te fonkoon na